tey jii dañoo ñëw fi toog autour d'une yi di valider li nga xamante ni dañ koy tuddee stratégie Euh, euh, nationale pour la protection des enfants su ñu waxee stratégie mooy xalaat mooy lañu càmbar mooy dañoo dox ba ci yàgg ñu taxaw depuis 2013 et président sur injonction du ma wax sax sur suggestion mais injonction et instruction du président de la république Macky Sall mu ne nañu xoolaat doxalin bi xale yi nan lañ leen mën a jàppale ñoo loolu ñu tekk ci ñaari poñ poñ bu njëkk bi dañoo def ce qu'on appelle la mise en place d'un système intégré de la protection de l'enfance ak li nga xamante ni mooy appui et promotion des droits de l'enfant bi jógee foofu dañ ko teg ci ñetti pilier pilier mooy jiiñ li wolof di wax jiiñ jiiñ yi bu njëkk bi mooy prévention mooy xob bi ko balaa ngay lakkale ñaareem jiin bi mooy la prise en charge mooy bi nga xamante ne dañ koy bañal xale yi muy violence bu xasee ba am lan mooy taxawaayu état bu ñu passé ci loolu muy l'accompagnement mooy bu amee ba pare nan lañ leen di gungee ba loolu du war a mën a amaat lii moo taxoon tey ñu toog fii ànd ak suñuy partenaire technique et financier ànd ak ministère bi nga xam ne moo ñu uuf ànd ak ki nga xamante ne nag mooy xale yi dégg ngeen leen ñu wax xale yi ñu ngi leen di dugal étape bu nekk bu ñu def woo nañu xale yi woo seen i ay représentant ni kaay leen ànd ñu waxtaan ndax nag kuy décider pour nit kat te nit kooku toogul autour de la table mooy tu décides sans lui. tey dañ ñëwoon pour liggéey boo ñu def pour xayma ko rapport bi nga xam ni ginnaaw consultant yi ñu ko dénkoon def nañ ko ak acteurs yëpp ñoo tey pour ñu valider rapport boobu. liggéey boobu nag dañ ko teg ci ndigalu président de la république moo santoon gouvernement à travers madame le ministre ñu xayma SNPE pour xool lu mu jur ci njëriñ. tam lan lañ ci mën a jubanti pour gën a mën a aar xale yi Sénégal ci loolu ma la mun jël arrêté boo xam dañ teg comité de pilotage boo xam ministère yëpp ci lañ bokk ak société civile ak xale yi ñu def liggéey boobu ci biir Sénégal yëpp def ay comité def ay questionnaire ak ay enquête def ay ndaje yu bëri ba tey nag avant même ndaje bii def nañu benn rapport ndaje préalable am rapport provisoire xayma ko tey ñuy valider rapport final rapport boobu nag li mu wane am na solo lool ndaxte gis na ne stratégie bi document bu am solo boo xam ni tey ñi yëngu ci wàllu xale yi ak ak yelleef xale ci Sénégal yëpp def nañ ko seen jumtuwaay ci la ñuy basé wu te jàpp nañu document bu baax la boo jëlee téeméeri nit ñu interroger juróom-ñeent fukk yi ak ñaar yi rafetlu nañ ko naaw nañ ko te dañ koy jëfandikoo. violence ci droit parce que je suis juriste ñaari façon lañ koy faral di wax mooy la violence elle peut être ou physique mooy violence boo xamante ni ñenn saa sax dañ ci yokk psychologique mais xam nga droit ay courant la ñëpp mën nañ ci bañ a jiboo waaye violence bi tax ñuy wax mooy ñu yëkkati xale di ko wax wax ju ñaaw waaye comme que suñu culture doo saaga xale wala tiital xale def ci bokk waaye dóor bi waaye li ci gën a graaw mooy viol bi li ci gën a graaw mooy rendi bi loolu mooy les violences yoo xam ne ñu ngi koy dund léegi ak xale yi waaye état mi ngi ciy def li ko war. koppar yi euh, li ñuy nattal secteur enfant ci Sénégal lu yaatu la rapport bi rafetlu na xaalis ba mu ci dugal mais neen dañ ko war a dolli te ci dolli boobu gouvernement bi chaque année ci budget bi dañuy yokk li ñuy jébbal xale yi rien que ci suñu ministère bi yore wàllu njaboot gi ak xale yi ci budget 2022 bi dañu am ñetti programme programme yu wax programme métier benn ñu jëm ci wàllu njaboot gi ak jigéen ñi foofu am na lu ñu nattal xale yu jigéen ñi ak famille yi am na beneen programme bu jëm ci nga xam ni mooy autonomisation économique pour dooleel jigéen seen wàllu koppar ñu mënal seen bopp jigéen li ñu liggéey day am impact ci xale yi foofu am na ay koppar yoo xam ne da am jeetal ci xale yi ñu am tam programme spécial boo xam ne mooy programme enfance ki nga xam mooy madame Diégui Diop la promotion des droits protection enfance jiite ko programme boobu rek ab xaymaam toll na ci fukki milliards ci budget mille vingt deux dañ ko jagleel xale yi bu ñu waxee xale yi nag xale yëpp la tout tànk yi mooy petite enfance ba xale bi amagul fukki at ak juróom-ñett mu jëm ci wàllu tout tànk yi jàng case des tout petits tout tànk yi am ay jafe-jafe ñu toppatoo leen xale yi am ay métital yu leen yu leen teg tam ñu toppatoo leen dafay jëm ci itam gën a fësal politique état bi def vulgarisation campagne de sensibilisation mais itam jëm ci xale yi xam dañ nekk ci daara yi ñu war leen toppatoo donc lool 10 milliards la ñu nattal ministère bi ci budget 2022 bi. waaye damay lancer waat un ndax nag dafa am loo xam ni dafa nekk source de droit. ñun ay sénégalais lañu ñun ay africains lañu dafa am loo xamante ni dafa bokk ci suñu société muy yar nañu delluwaat ci loolu yaay yi nañu téye xale yi place xale du ci mbedd place xale ci biir kër la bàyyi nañu téye xale yi xam nañ dëkk metti na xam nañ àdduna bi metti na xam nañ nit ñi dañuy wuti ji waaye kuy wuti ku ne bàyyi xel ci ki tax ngay wuti parce que boo demee bay wuti ba sàggan ba kooku ñu rey ko kon dara dootu ko jar nañu xoolaat xale yi nañu bàyyiwaat xel xale yi ñu xam ni état li ko war da koy def parce que mission régalienne am la que président Macky Sall looloo ko ñor parce que président Macky Sall ku bëgg loolu mën a gën a mën a avancer Sénégal doo ko gën a mën a bëgg ndax moom mi nga xamante ni dañ ko fal ba pare te pour la postérité la violence yi ñu gis métti na ña ngay rey xale yi ña ngay violer xale yi ñuy woote waat rek nañu dellu si waat xel yi Sénégal jàmm lañ fi xam Sénégal teranga lañ fi xam Sénégal yar lañ fi xam bañ na ko ba Sénégal rek ngay gis ku am possibilité jël doomu jàmbur dóor ko yar ko ndax pour nga mën ko teg ci yoon kon nañu dellu siwaat xel yi te ñu dellu siwaat ci jiiñ bi nga xamante ni c'est la famille